waaw combat bi ni ma ko gisee daal moom vraiment neex na daal. Ah. waaw neex na waaw. vraiment comme lamb ji ni ma ko gisee ak wax ji ni mu bëree woon. Hmm. ak euh, comme ni ko jëlee woon ak euh, fi mu mujjee daal dafa wute la pour man. Ah. parce que ñëpp dañoo defoon lat foog yi si lamb ji te dèjà moom doon na wax daal lu jiitu avant lamb daal. Ah, ñëpp nga jàpp ne Modou Lo moom. Euh, kan nga joxoon favori ñoom ñaar Modou Lo wala Lac de Guiers. man ndaka jekk Modou Lo laa jox favori man. Ah, lan moo tax joxoon ko favori. damaa xam sañ-sañ bi nekk si moom ak gëm-gëm ji ak bëgg ko ak ñeme entraînement mais est wane na ko carrément. bi mu dikkee taxaw na wane na parce que bëree ñaar la bu kii di bëree kii di défendre dara du sotti parce que bëree ngay bëree kee xam ne moom leer na la moo ëpp gabar yi nga ñëw di ko imposer tamit te moom yëngulut boppam kooku neexut a bëree. waaw dèjà li ma lay wax rek mbër moom ba nga bëreeg moom faa nga ñeme ko boo ko ñëwut doo ko daal mais gëm na ni bu fekkoon tey loolu mu am si moom Modou am na ko si moom la am ji jeex na bu yàgg waaw loolu laa gis waaw non man Babacar laa tudd waaw ok ngi si jàmm ok waaw man Bouba laa tudd waaw seetaan naa combat bi waaw ah ni ma ko jàngatee moom xam nga Modou Lo quoi waaw ah, ñu naan Lac de Guiers bëru mais Modou Lo tamit taxawul ko day cokkaas si ko quoi. Ah, ah, man man daal kii Lac de Guiers laa jox favori moom laa faral aussi toi ah Modou Lo taxawul ko xam combat bi Modou Lo day cokkaas day cokkaas di daw après du taxawul quoi. mais loolu tamit boo xoolee li mu doon parce que Lac de jël na coup coup boo xam ne ne foog mu génn saako yi quoi foog mu génne mais taxul ay ay kii la mu jox la ñu jox ko avertissement. première ñu joxaat ko deuxième avertissement mu dóor ko kii mais man ni ma ko gisee daal daal combat bi daal kii daal des na quoi. mais nga yaakaar ñoo ñaar war ah, man yaakaaratuma ko wax dëgg yàlla moom yaakaaratuma ko ah. non non. waaw ah, baax na kon grand rafet na. waaw gis nga ne sunu sœurs yi lañ gunge woon nii quoi waaw ñoom ñoo ñoom ñoo doon jënd man laay laa tudd laay coy. tey seetaan nga combat. Kombabi, combat bi ah ni ko ñepp jangate rek comme que sa way mom day daw ba affaire yi jeex ken mënu ci dara sa lak de ñepp xam nañ ko modlo sax chaque day dox ci kom moy créer action moy door moy def lepp sa way di rasu rek di arrière pour man li mom nekkatul mbeur mbeur kasse quoi maanaam mbeur mom créer action soit nga door song mais bo xolé dafa taxaw rek ni nem ba légui deful dara franchement bett nañu dal déception la lek munam xolé la len quoi mo gën soit mu nek mol wala affaire yone parce que amna doole mo gën quoi mais lamb ji mom du place am franchement parle xande deug fekke deug rek taxa parce que man té sama ki ki ma supporter hein ah, affaire affaire commencé na comment comment commencé na affaire bu ko yeungal sama bop rek ma xam ñu daan na ki ki ma supporter Hey, hey, hey, hey, yow combat bi métti na ci si lan ah. métti na. Hmm. parce que man gis na balaa timis ah balaa kii mu commencé kii kii ma dem julli rek affaire mu commencé yëngal sama bopp man ma xam kii sam kii kii daan ah, kii daan na sama. Ah, waaw loolu mooy gis nga man. man man Ibrahima mais gu jaabi gu jaabi gën a xam gu jaabi. mais non non du bàyyi de parce que tey kii bi ah moom kii du bàyyi de day continuer day daanaat keneen ku ñëwaat si moom léegi ah mu kii kii moo moom waaw sama ko mun waaw man man gujaa bi ñoo gën a xam waaw Ibrahima Ibrahima mais mais gujaa bi rek ñoo gën a xam mais bi tey moom xam naa ñoom ñaar moom dese nañoo aay quoi man loolu laa gis daal. ak foo ko teg. fi ma ko teg mooy kenn ku nekk da ngay xaar sa morom def dara. waaw yow xanaa amoo ci woon koo xamante ni moom nga joxoon favori mooy sa favori moom man ah, instant yi xam nga combat moom favori fan nga koy joxe mooy ñoom presque mën nga joxe favori galaaj bi ñëw daan kee. lamb daal boo ko nomee dëggantaan da ngay dem si mbapat yi quoi man dama jàpp ne man du ma dagg sama 5000 di ko seetaan lamb yooyu noonu amul temps daal. kon daal nga gis ne ñaari mbir no yak bu baax a baax. Oh. man loolu la gis ko en tant que sportif. parce que ñom ñaar mom yaakaar naa moom tey moom dañoo weere parce que ki ki ñu naan xarañ la man suma xamé né man mala man dama la koy won man. munu duma la may dara. ah la lañ joxon favori parce que mom favori bi dal li tax ñu joxoko day ay ci ay waxam la quoi. si ay waxam parce que nit ni muy waxee xam nga am confiance da ngay jàpp ne kii moom mooy favori daal mais bu dee si wàllum làmb la moom ñoom ñaar kenn bëreewu si man loolu laa gis. non yàq nañ ko moom El rek El sant bi dama koy jaay. a laaloon lekk moo tax Modou laa tudd waaw ah, non fan sa xale laa ah, tapel la quoi xam nga mooy loolu lekk xam nga man moom du te doo pare dina jox dërëm ah mooy loolu wasalaam. Moussa. Moussa. waaw. Ah, ah combat bi li ma ci gis mooy sawaay lim daan def la def rek daa ñëw daw combat bi moom moo la gën a xam ne ne Modou Lô du moromam la dëgër moo gën a xam loolu. fii bu lomb bu combat bi dina continuer gis jël jël jël nañ mais xam nga bëggewuñ ko ni buñ sañoon dañ koy daan jël bu set wecc mais comme que ni la ko yàlla dogalee moom duñ def lu sant yàlla di gërëm mbooloo mais di la wax la dëgg daa moom du mbër moom bu bëggee dëgg dëgg rek daa dëgg du mbër moom day défendre rek ñun nag ñun dañoo pare ñun mbooloo moom ci kaw ci kanam rek wasalaam ah lamb ji non vraiment man lamb ji neex na trop mais nag len dong moma ci manque quoi mooy décision bi arbitre bi jël daal moo ma jaaxal daal ba léegi moo ma jaaxal mais bu loo vraiment li mu war a def def na ko ba pare xañ na la de guerre nag moom comme moo ëpp te moo doon laaj avance mom mo wona deugal bopam dool gan ga mu wacc mais nak nek fa di tande fal ba gan gi def ko lim koy def gàcce nga la mu mën loo mën loo moom fi ñu toll am na ndam waw ci kaw ci kanam rek ci lu baax Serigne Fall dam Dame waw kay waaye ñoo ngi sante yalla bu baax. waw parce que ñun mom Modou Lo moy suñu mbër dañ ko yag bëgg waw wa deug yalla ñu wax tamit ñu wax la di gert mom mu dem defar jiwaat wat xamne mënu dara xamul dara xamuko ko mënut a bëre moog ay supporteram dara xamuñu ko waaw mais timit gan gi dako ko beure dako man ci lepp moko ko xex xeex ko beure bokkuñu sa la de guerre dafa don ko xam si mom ñëmewut mulo fum taxé ak Modou du xam lu mi beure sa Modou dafa don mbër mo xam si fi yaa koy xel dako daan waaw la de guerre dara xamu maa Adama Adama waaw non non fii laay jaayee sama place ngi ne. ah neex na de moom man ma Modou Lo sama mbër la moom. waaw. wax dëgg yàlla yéene na yéene woon nañ ko ko bu baax waaw. <laughs> combat bi de wax dëgg yàlla man neexuma parce que su ma sañoon jël day am man Lac de Guiers moom wax dëgg yàlla su ma ko faralee ginnaaw yàlla baal la gala tax waaye tey moom daf maa rusloo. suma soñon mu daan mu loo jël bu len nañ waaye gis nga tay yalla leela tuddu neexuma mo wax deug yalla yi man mo mënuma wax ko quoi pour man dañ waron baye ba dernier round bobu jeex quoi ah kon nak non la démé kan non man xamona naa mo la de guerre munul daan dama ju modlo Lo munul daan la de guerre ci bëree parce que du ko mënu ko loolu xamoon naa ko parce que ëpp ko maanaam Modou moom jàmbaar la ku xam Modou xam ne jàmbaar la mais la de guerre ci boppam dafa naqaree bëreel pour mbër daan ko ba mu daanu jaaxaan ah comme ni ko amu seen defoon du yomb de.